وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته gannaaw bu ñu santee sunu borom tabaraka wa taala màggal ko julli ci ab yonentam sallallahu alayhi wa alihi wa sallam noo ngi koy dooleel sant moom sunu borom tabaraka wa taala di ko dooleel kañ ci mu baaxee na ba shahru ramadan delsiwaat nu fekke ko ànd man koo woor loolu doon tawfiq yoo xam ne bu rëy rëy kon alhamdulilah rabbil alamin tomb bi suñu mbokk bi juñ bi mu di xaalu alsalaf saalih maa ramadan melokaanu yi nga xam ne alsalaf saalih moom lañ doon dund ci weeru koor tomb la boo xam ne aajowoo nañ ko lool nekk lam aajo xam tomb bu nekk ci diine nuñ ko doon dunde ndax mu mën koo dund noonu lañ ko aajo woo ci moom la waral loola moo di buñ ne ak salafu saaleh lañ ci jublu te ne bi sallallahu alayhi wa sallam moom mi yàlla yónni wàcce ci moom alquran digal ko mu jottali ko su jàllee saxaaba yi ñoo ko tëb ñoom ñu jàllee ci moom mu xamal leen la ko yàlla yónni woon directement gan doxul digganteem ak ñoom yar leen te bañ dund ko ba borom bi tabaraka wa taala ci boppam ne leen moomu baax ne leen it diine jooju yi ngeen nekk mooy ju ji diine jooju mooy bi nga xam ne yàlla du nangu jeneen judul moom su ñooñu jàllee ñoom it ña jàngee ci ñoom ñoo ca sës muy taabiroon ñu sës ca saxaaba ya ñu jàngal leen diine bi ñu ànd dund ko ak ñoom nañ ko jëlee woon ca yonente ba sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ko dund ci seeni jaamu yàlla ak ak ci seeni jikko bàyyiwul na yëpp ay mbir ñuy wone lenn lu nekk nañ ko doon dunde tomb la boo xam ne waxtaanu lenqente la bu la neexee nga tudde ko loolu bu la neexee nga doon tudde ko bind boo xam ne bindu fàttaliku la maanaam nax na boo xam ne dañ koo bëgg a doxale ci ak teey ndax li ñuy wax mën a dugg ci bopp yi bu baax a baax ñi góorgóorlu itam ba wattandiku noon boobu yi ñuy wax nelaw ndax bu nit ki nekkee ci koor toog ci bërëb bu féex rawatina nag mu wéeru maanaam bu wëttuwut rek noonu bi nga xam ne moom dañu tudde nelaw seytaane mën na ko sànni mu nelaw te fekk la ko andi woon ci jotaay ba ba woon ñëw di nelaw waaye ñëw bi dillu di jëriñu moo ko andi woon kon ni lii ma dimbaleen tey ñeen jànnal ba ku demoon ba sa morom bi bëgg a nelaw nga jàppaleen tey moom ngir yàlla yee ko ndax mu man fee nekk weeru koor borom bi tabaraka wa taala daf ko jox jagle yu bari shahru ramadan borom bi tabaraka wa taala daf koy jagleel jagle yu bëree bëri ndax li ko waral mooy koor ci boppam moo am ay jagle waaye ngir mu jiw yi leen na ci jagle yi nga xam ne borom bi tabaraka wa taala daf koy jagleel weeru koor danoon tudd leen ci ay tomb bi ci jëkk moo di borom bi tabaraka wa taala moo tànn weeru koor mu doon weer woo xam ne ci la wàcce lu bari ci téeréer yi ndax yëmut rek ci weeru ci alquran bu dee alquran karim borom bi tabaraka wa taala nee na shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weeru koor ci la borom bi wàcce alquran karim mu jóge ca kaw mu indi ko ci asamaau dunia fi ñuy wax baytul izza mu wàcce fa alquran lépp ba noppi nag mu door koy wàcce ndànk ndànk ba ba ba keroog kon weeru koor ci la borom bi tabaraka wa taala wàcce alquran yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ñu ngi leen ni itam xamal nanu ne ci xadis bu wér boo xam ne ibnu abi shayba ak ak tabaraani ak albayxaqi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ne nazalat suxufu ibrahima fi awali laylatin min shahri ramadan téere yi yàlla wàcce woon ci yonent yàlla ibrahim mi ngi wàcc ci guddi ga jëkk jëkk ci weeru koor wa unzilat at-tawrat li sittin mabayna min ramadan téere bi ñu te di wàccoon ci yonent yàlla Muusa ci juróom-benni fan ci weeru koor la wàccoon ci Muusa wa unzila al injilu li salaata asrata xalat min ramadan ñu wàcce l'injil muy téere bi ñu wàcce woon ci yonent yàlla Isa ci fukki guddi ak ñett ci ramadan la téere boobu wàcc mu teg ne wa unzila alquran li arbain wa ishrina xalaq min ramadan ñu wàcce alquran ci ñaar fukki guddi ak ñeent ci weeru koor kon weeru koor weer la woo xam ne borom bi tabaraka wa taala tànn na ko wàcce ci téere yi gën a siiw ci téere bi muy sopp Ibrahim ak bi mu wàcce woon ci Muwatta muy Tawraat bi mu wàcce ci yeneen ci yàlla Isaa muy bi nga xam ne nag mooy ndey yooyu yëpp muy alquranul karim mu wàcce ko moom itam ci Ramadan kon kooku jagleel na mag bi boo xam ne borom bi tabaraka wa taala jagleel na ko shahru Ramadan ñaareel ga li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne odeur bi nga xam ne xeetu julli ñu ci woo daf koy am moo gënal yàlla xeetu mis muy parfum bi nga xam ne moo dàq ci parfum yi doomu aadama bi jëfandikoo odeur bi am ci julli ñu su wooree moo dàqal borom bi tabaraka wa taala xeetu mis loolu koor rek ko am te weeru ramadan it moom rek mooy weer woo xam ne moo jagoo woor ko ba mu jeex loolu la jagoo ñetteel bi tastaghfiru lmalaikatu lissaabiriina xatta yaxsiru sax na ci xadis bu wér ne malaayika yi liggéey yi ñu di liggéeyloo bu koor ñëwee te day am liggéey bu ci bokk mooy di jéggalu ñi nga xam ne dañoo woor saa buñ xëyee waxtu wa nga tëdde ba jàpp jàppal ne balaa yi tey ñu ngi lay jéggalul ba teram ngay dog loolu koor rek moo ko am te koor sëfru ramadan rek moo ko jagoo ci weer yi sax la ci xadis wér itam ñeenteel ba ne borom bi tabaraka loolu du ko yomb kon mu yor maanaam kooku tëj buntu sawara ndax sabab ya ko daan yóbbu sawara yooyu dagg nañ leen ubbi di buntu àjjana yi moo di ci woor li ñuy séntu ci rawatina bu tënkoo ci nii asalafu saalix daan def te danañ ko xam ci kanam wala danañ ko xam lu bari ci kanam kooku kooram dana dox dana ko mën a yóbbee mu bokk ci ñi nga xam ne waa àjjana la ñu doon bokk na ci ngëneel yooyu moo di weeru koor ci la laylatul qadr nekk laylatul qadr genn guddi la boo xam ni ko borom bi tabaraka wa taala waxee moo gën junni guddi moo gën junni guddi guddi la boo xam ne ku ñu xañ aw yoon maanaam li fi nekk ci aw yoon ku ko amut bañ jàll foofu xañ nañ la yiw yu bare bare bari ay at yu bare bare bari ngay boole mu door a mat junni guddi kon yiw junni guddi borom bi tabaraka wa taala booleel la ko ci genn guddi yow bu nit bi kooku soo ko màngoon ñaari yoon rek ku gudd fan ngay daal di doon yóbbu nga ci aw yiw loo xam ne nit ki day dund nangam at doog yoo xam ne ci jaamu yàlla la ko sax wax guddi borom xam-xam yi dañuy wax ne mat na juróom-ñett fukki at quatre-vingts ans kooku soo màggee ñaari laylatul qadar kooku cent soixante ans la boo amee ñetti laylatul qadar ñaar juróom mën ngaa doon nit koo xam ne man nga ci aw yiw ne ci juróomi téeméeri at wala ñeenti téeméeri at wees ko war a mën a defe nga mën koo def ci juróomi guddi wala ñeenti la ne la ko li ci rek mooy nga mën nga koo jël kon laylatul qadr ak màggaayam boobu ci biir ramadan rek la nekk nekkul ci weneen weer tomb juróom ñaareel bi moo di borom bi tabaraka wa taala dafay jéggal mbooleem ñu doon woor te sellal ko jaar ko ci yoon li ñu war a jaar koor daf leen di jéggal bu guddi bi mujj ci koor bi ñëwee aaxir ah, laylati min ramadan borom bi tabaraka wa taala day wax jaamam ni ne leen jéggal naa leen yéen ñu doon woor waaye nag koor boo xam ne borom dafay sàmmoon teeg koor war a mel moo tax toog di lu mel nii loolu loo xam ne lu am la ndax koor gi ma mën ko dëppale ak lii tax mu jural ñu li koor bi jural ab jullit ndax rek lekkuma naanuma rek doyut danañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye yiw liñ ci wax ngir nga mën koo lëbbaale da ngay woore ni ñu wax itam loolu yëmut rek ci koor waaye ci jaamu yàlla yi def julli borom bi tabaraka wa taala waxee ne inna salaata tanha an ilfaxshaai walmunkar julli dafay dox diggante jullit bi ak def lu bon nga gis jullit buy julli ba noppi di def lu bon di sàcc di tooñ di xaste téyewub làmmiñam di lekk alalu jàmbur te saa bu julli jotee bu julli xamal ne daay julli nañ wax koor jeexam noonu la liñ fi diglee lépp ci aw yiw li fi nekk lépp ci aw yiw ñu ngi ko tënk ci su fekkee ne nañ war a woore noonu nga ba ca tegu moo di borom bi tabaraka wa guddi gu nekk ci weeru koor guddi gu nekk am nañu bare bare bare mbooloo moo xam ne lim ba da waxuñu ko xam na si waxu ñaata la waaye guddi bu nekk ay nit ñoo xam ne yayoo woon nañ kàddu sawar suñ saako woon borom bi tabaraka wa taala jéggal leen ñu mel ne bañ juddoo fab seeni bàkkaar ba mu jeex tàkk loolu nag guddi bu nekk la lillahi ataqaa min annaar ñoo xam ne yàlla libéré na leen ci sawar guddi bu nekk ci weeru koor yàlla na yàlla boole ci ñoom jëkk moo di man saamahu imaanan wa ihtisaaban kufira anhu ma taqaddama min dambi képp koo xam ne woor na weeru koor te yàlla kese tax woor na weeru koor te yàlla kese tax far nañ bàkkaaram ya weexu woon ba ca tegu man qaamahu imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi ku taxaw ci naafilay weeru koor defe ko ni nga ko war a defe ba mu jeex for nañ say bàkkaar say bàkkaar jeex na amatoo bàkkaar waaye nag loolu lépp imaanan wax ci saaban fekk da koo def ngir gëm yàlla ak sàkku tuyaaba maanaam yàlla moo ko tax di def ba ca tegu man qaama laylata alqadri imaanan wa ihtisaaban kuffira anhu ma taqaddama min dambi guddi laylatul qadar ku ko taxaw naatu ne ko def ko la ca wax ñu faral la li ngay toog say bàkkaar kon weeru koor ay occasion yu fees dell dell dell ak far bàkkaar yi ak yëkkati daraje boo wooree weeru koor far nañ say bàkkaar nga def naatu lay far nañ say bàkkaar su la càggante jaaroon sax ci naatu lay waaye nga am tawfiq laylatul qadar nga naatu la ko guddi googu borom bi tabaraka wa taala faf na say bàkkaar wax dëgg yàlla ñëw ñu yaatu li def tey mooy jaamu yàlla bu jóg préparé lamboo condition yi ak yi nga xam ne noonu la war a mel ngir mu bokk ci bokk na ci jagle yi koor am borom bi tabaraka wa taala bépp jëf boo xam ne doomu aadama jëfe na ko dañ ko koy fay rek dañ ko koy fay maanaam malaayika lay biral ñu bind ko buñ ko koy fay it malaayika yi ñoo koy jël fay ko ko ci ndigalul suñu borom tabaraka wa taala waaye mu ne koor nag man naa koy fayal sama bopp jànge bu rëyee ko bu fekkee ne malaaka mi dañ doon wax naan ko bindal diw def na nangam bindal diw wax na nangam ci yiw fay def ñu ne jëlal nangam jox ko jëlal dugal fii jëlal def nii ba mu des koor borom bi tabaraka wa taala ne malaayka kooku bàyyi leen kooku man maa koy fay maa koy fayal sama bopp kon weer wi mbokkum jullit bi lu weer wu doyee bi ci dundub jullit weer la woo ne benn doomu aadama lu mu tàmm ko faral di gis bu yàggee day mel lu xaw a weex moom waaye lu biis la seetlu rek kuñ ne la woon da nga dund juróom ñett yow jullit ñu ne la da nga dund quatre-vingts ans waaye quatre-vingts ans yooyu loo sàggan sàggan am na ci at moo xam ne boo demee ba ci at ma ca mujj danañ la ca indil wenn weer woo xam ne la ca ne ci ay boo ko jëfee sa bàkkaar yi jiitu woon yëpp danañ ko far danañ la ubbil bunti àjjana nga dugg ci nga xam ne benn occasion boobu nga am ci sa dund kon boo dundee ba am soixante-dix-neuf ans bañ ne la sa quatre heures temps dugg si na ñu ne la ah weer wa ak si na la nga xam ne tàmbali nga di wàññi weer yu la dese ci kaw suuf benn ñaar ñett ñeent juróom juróom benn juróom ñaar di ci juróom ñett ñu ne la ah, mooy weer wi nga xam ne su jàllee li la ko dese muy ñaari weer nga jeexal weer woowu moo koy jëfe benn occasion boobu suñ ndax da ngay nelaw wala da ngay toog seetaan ay film wala da ngay dem ci football ba te match ba wala da ngay dem ci gaara place ba yenn ko ngeen di waxtaan nga ne da ngay dàq koor jàpp naa ne yooyu yëpp doo ci def lenn nangu ko ngay def ndax yëg nga ne bàkkaar yu bari jàll na te bëgg nga mu fàq yëg nga ne bëgg nga faa tabbi àjjana yëg nga ne it ñaari weer rek moo la def ci àdduna kon loolu yëpp daf lay tuute ngir nga màngu weer woowu jëriñu su fekkee noonu la nag yërmaande suñu borom tabaraka wa taala ànd ci ak mu ne ci suñ dëgg boobu mu andil la weer woowu ak mu ne du benn yoon de waaye moo fi am mu ne rek andil nañ la weer woowu pour nga jëriñu jëriñ yu bari yooyu te kat weer woowu misaal misaal mi ma la joxoon nga xam ne da ngaa xamal ne bu jàllee defee nga fi ñaari weer wóoru nga bu jàllee ndaxal nga ñaari weer am ngeen wóoru nga at mi bu jàllee ndax defee nga fi ñaari weer am ngeen kon sabab yi war tax jullit bi góorgóorlu ci nangu weeru koor yu bare bare bare ngir nag mbokki jullit bi suñ koor mën a dëppoo koor gii jëriñ jaadu na ñuy góorgóorlu di jàngat ak di fàttaliku ak tey koor jëmi ak tey sariya yi ci boppam lan la ko sariya tëre ndax mu mën a xam lan moo ci farata lan moo ci liy jaadu lan moo jaaduwut lan mooy ponkee loolu jullit bi da ko war a jàng ba xam ko ndax jaamu yàlla moom yéru rek ci njëriñ danaa yëg nit ñi di def rek ma def waaye dafa jaadu nga xam kon jaadu na ci mépp mbokkum jullit muy woor mu nangoo sonn ci xam ak tey moo xam daa yor di ko jàng wala dafay laaj borom xam-xam ya wala dafay teewe duruus ya muy bind ya ñuy jàngale ak yeete ya jubbal wala dafay teewee ak waxtaan ya ya demee nii wala sax sax dafa boole yooyu yëpp waaye lu ma la xew war naa jéem a góorgóorlu ngir am fiq ci koor comme ni ñu ko ajoo ci yeneen jaamu yàlla yi ci des nit ñi su xamul attey koor mën naa def lu xaraam ci biir koor gi te du ko yëg kooram sax mën naa yàqu te du yëg ne yàqu na kon aajo woon nañu xam atte yooyu bu baax pour ñu jàngal ko ci attey koor door a dugg ci li nu tax a jóg danañ jaar ci tomb yi tomb bu njëkk bi ponki koor ponki koor ay ponk buñ ko waxee mooy poto yi ko tëye ndax xam nañ ponki koor fonki koor maanaam arkaana siyaam ndax jàng nañ ko ba xam lu mu doon mooy lan wala dañu woor moom rek daa di ne yaa ngi ci mu jeex fonk buñ ko bu manqué rek fonk bu daanoo rek côté bi bu daanoo tabax bi day daan maanaam mun cee ñàkk koor am na ñeenti fonk bokkul ak liñ siiwee ñu wax na ñaari ponk la waaye ñeent la ba ci jëkk muy yéene yéene ci koor nag buñ ko waxee jullit bi su xasee yéene benn yoon fas yéene lu dul nag su fekkee kooram dagg na mu bëgg tàmbaliwaat maanaam ngànt gaar na ko comme ngànt liy gaar jigéen wala nga daan pligar ko tukki ba di wooraat mu fasaad yéene fasaad yéene woor li des ci weer waaye su fekkee ne demut fenn ngant gaaru ko xas wun te bés bu jëkk ba yéene yéene jooju mooy continué ba keroog weer way jeex waaye nag fu mu na beesalaat yéene ñaareelu ponk bi moo al imsaaku an al fexe ba yi yàq koor ñu bañ cee def benn foofu mooy ñaareel ponk ñetteel ponk bi moo di al zamaan jamono ji jamono ji ñuy woo kooku ponk la jamono ji mooy gan moo di weeru koor waaye du weeru koor yëpp waaye li tàmbalee ca fajar ba kera jant ba di ponk kon jamono mooy ñetteelu ponk bi ñeenteelu ponk bi moo di as-saa'im kii woor ci boppam kooku mooy jullit boo xam ne majeur na yorum xel mën naa woor te amul benn ngànt ñeenti ponk ngoon yoo xam ne koor mënta am te amuñu suñ dajee ñoom nag mënees naa woor ñaareel ponk bi yi yàq danaa ko tudd rek tudd bu gaaw si ci bëccëgu ramadan dafa yàq ko génne mani ci waxtu koor dafa yàq ko maanaam ci bëccëgu koor lekk ak naan dañuy yàq koor lu mën a toog lekk ak naan dañuy yàq koor ku feebar ñu koy samtal ay biteel yoo xam ne daf koy daldi dat doole wala boog ñu koy may deret suñ ko falee deret kooram yàqu ndax yooyu luy toog place lekk ak noonu juróomeel ba loobu ba waccu maanaam tey tey lu waccu xam da wala da ngaa fóon li tax a waccu wala moo ko mën a waaye doonul loo xam ne lu mel noonu su bàyyi woon mel rek noonu rek lay mel kon kon jiima la def lu nekk pexe mën a jéem koo def pour bañ a dajale say lor sa soo ko defut doo am problème naan damay wuti fu ma tëgle wala yu mel noonu ñeenteelu tomb bi am na ay teggiini koor yoo xam ne yu war obligatoire teggiin yu war nit ki daf cee war a tënku bu ko defee day am bàkkaar bi ci jëkk mooy bàyyi fen loolu dañ koo tere woon bi koor gi daa doon ñu ci biir koor gi nag fàttali ko ñaareel bi bàyyi jëw ñetteel bi bàyyi rambaaj defe naa yooyu xam na nañ leen mooy lan hmm. maanaam tudd sa jullit wax ci moom loo xam ne moom lii bëggul woon ku ko tudd nga sa mbokkum jullit wax ci moom loo xam ne bëgg nga woon fu wax loolu mooy jëw te fekk nag loolee nga wax ci moom lu am la su doonee lu am lay doon jëw waaye su doonoon lu amut kooku da nga koo duural maanaam da koo fenal su fekkoon ne la nga wax amut kooku da nga ko fenal dëgg nag jëw am na yuñ ci seetee yoo xam ne du tàbbi ci jëw comme ci misaal su nit ki bëggoon a dugg ci jëflante ak keneen ci jëflante yi doomu aadama yi di jëflante moo xam jëflante ci wàllu alal la wala jëflante ci wàllu sëy mu ñëw ci yow ne man kat diw sàngam mii dañuy bëgg a bokk benn société di liggéey te yow xam naa ne xam nga ko loo xam ci moom mu wax lam xam ca moom donte la ñu wax ci moom waaye bi bëggu ku ko wax it kooku moom du tudd jëw ndax loolu nasiixa la ndaw si ñëw na ne ah man kët diw sàngam daa ñëw di ma lagat si te naa ne xam nga loo xam ci moom mu nangam ak nangam laa xam ci moom ci ay jikkoom wala ku góor ci ñëw diw sàngam kët dama koy bëgg a lagat loo xam ci moom kooku ne ah li ma xam ci moom day nangam ak nangam ak nangam su boobaa yooyu du tudd jëw am na lu mat juróom-benni bunt yoo xam ne dañ koo génne ci jëw su ngeen delloo ci téere bi ñuy wax Riyaadu Saalihiin al imaam an-Nawawi dajale na xam ne benn bu ci nekk doon te waxal nga sa mbokk jullit lu mu bëgg it loola moom du tudd jëw loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a jëw kon bu leer na xam nañ ne mooy nga wax ci sa mbokkum jullit lu mu bëggul lu dul exception yi xam ne am na ko ñetteel bi kon mooy rambaaj yi ak xaraama la gën a seetliku ci la bokk rambaaj mooy lan an namima ku ko xam ah, ah. nee na jaxase dëgg la mënuñ ko tudde jaxase ndax am na nit ñoo xam ne bëgguñu jàmm dox diggante nit ñi day ñëw ci fii ne ko waaw xanaa li ma dégg diw sàngam di la ko wax dañ koo yëgut dem ca kooka ne ko diw sàngam lim lay wax xanaa yëgoo ñoom ñaar buñ dajee luy kenn ku ne bët ñu ngay xool sa morom mooy am na lu muy wax ci man kooku mooy rambaaj ci bakkaar yi gën a magee ci la bokk di dox diggante ay nit di ko yàq kooku wute naa kuy dox diggante ay nit di ko def ndax kii defare borom xam-xam yi seen gëstu dem nañ sax ko gis ne am na sax xadiis buy wane ne kooku biir defare nga ci ci fenoon sax waxoon lu ëpp sax bu boobaa day dagal xam na ne diw ak diw daal ñagas ñagas am na seen diggante mu toog waxtaan ak kenn ci ne ko ah, yow de li xew sa diggante jiw di wax dëgg yàlla teewul man day toog naa ci jotaay mu wax ci wax ju wax dem ca fekk des wax ko kooku ma safaanu rambaaj bi ñoom ñaar mën nañoo daje rek daal di nuyoo daal di tàmbali waxtaan fàtte la xewoon parce que kenn ku ne jàpp na ne sa moroom soppiku na mi ngi wax ci yow lu rafet léegi kooku defare na diggante ñu ne kooku bu waxee lu xamul itam daggan na ñeenteel bi ijtinaabu shahadati zuur teggin yi war bokk na ci jullit bi du témoin lu dul dëkk kaay fekkeel ma wala kaay témoin ma nangam te fekk loola ay neen la lu baaxut la nga lu baaxul du ma ko témoin wala mu jekki-jekki ñëw ne diw sàngam de fekk naa ba muy def nangam pour bëgg koo dëgëral dëgëral aw laayam te fekk fekkee woo ko kooku ci shahadatu zuur la bokk loolu dañ koo aar bu koor ñëwut waaye bu koor ñëwee faddu ko juróomeel ba ijtinaabul xisti fil muamalaat lépp loo xam ne xeetu kurub la ak naxe ci jëflante araam na bu dara xewut waaye bu weeru koor dikkee xamal ne daa bokk ci teg gi yi tax sa koor mën a doon koor bu baax yii nag ku fexewul bu mucc ci ku fexewul bu mucc ci bu sa koor jiwut la koor di jiwut itam yow yaa xool sa bopp moo tax julli bi dafa war a góorgóorlu ci koor ba comportement lépp day changé ndax loolu li ñu koy jëriñ mooy koor gi day jàll mu far mel noona yam bàyyi woon ci koor gi mu far bàyyi noppalu ci tomb juróomeel bi aadaabu al muhtasaba dafa am teggin yoo xam ne nit ki da koy def ngir dolli ko tuyaaba da koy def ngir dolli ko tuyaaba ak rafetal kooram loolu bokkul ak teggin yi nga xam ne boo ko deful da ngay am bàkkaar mën nga ci am bàkkaar mën am bàkkaar yi soo ko bàyyee waaye def bi dafa lay dolli tuyaaba ndax yi ci bari da rafetal sa koor ba mu gën a dëppoog sunna yooyu bi ci jëkk moo di taxiiru saxuur wa taajiru lfutuur yéex a xëdd ak teel a dog a xëdd ak teel a dog waxuñu rek yéex a xëdd nga nga ndékki waxuñu ndékki maanaam bu fajar xafay jox arrêteel bul nekkati fajar naa xam lool bu doon ca dëkki àll yi nga xam ne ay làmp nekk fa ak xam ne mel noonu bu fajar jotee boo xoolee asamaan si rek da nga xam ne fajar nga ne ndax fajar ay jeexit ci jant bi la doon ay ay xam ne boo xoolee asamaan si ko xam ne jant bi seen ko bu waaye bii ci ay jeexitam la effet la boo xam ne a leeru jant bi la jóge loolu bu doon ca àll ba nga nekk foo ko séenee arrêté sa koor boo nekkul ci àll te mën a gis jàkke ju wér joo xam ne xam nga ne waxtu wi ñuy nodd mooy fuñ ne asalaatu xayru min an nawm fajar dafa jot foo dégg asalaatu xayru min an nawm jeex bu dee da ngaa yoroon benn tig sax ko àggale ko jeex ko te yem foofa bul konti loolu lépp xamul ah programme yi borom xam-xam yi teg tër ko waxtu yi ñuy jàpp di ca jeexal xëdd bi ak programme yooyu nga yor ci benn au moins di ci xam waxtu wi nga ne ci ngay dox ak waxtu wi nga xam ne ci ngay jàpp kon yeex gi mooy def ko fekk mu jege fajar lool fekk mu jege fajar lool léeg-léeg am na nit ne sunna soosu dañ koy bàyyi la teggin yooyu mu di jàpp ne daal nelaw ba noppi jóg di moom loolu man mënuma ko du sama aada ma mënu ma su ma xasee ma yow ma mën a lekk nga kon damay bàyyi ba trois heures ma ma lekk dara daal la loolu moom du xaddu loolu du sunnatul xadd ba yonente bi sallallahu alayhi wa fa inna fi saxuri baraka xëdd leen ndax xëdd day la lu am la yi teel a toog itam mooy bi soor bi soor kooku ñu teel a toog koo xam ne da ngay dem ba noppi jant bi di feeñaat loolu moom ku ko def da ngaa juum maanaam da ngaa lekk toog koo jóg ñaareelu teggin bi kaful lisaani an illahi wa fudulil kalaam téye sa làmmi ba wax ñu ëmut njëriñ bi ci génne xam nga wax yi ñetti xaaj lañ waxi doomu aadama ngir nga mën a contrôler xamal ne ñetti xaaj la am na wax yoo xam ne da nga cay am tiyaaba jàng alxuraan tudd yàlla digle lu baax jàngale jàng julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nuyoo salaamaaleykum wax la yoo ne da nga ciy am wax yoo xam ne da nga ciy am bàkkaar fenn jëw wambaaj ak la ko nuru yooyu yëpp nit ki di ci am am nag wax ju nekk ci diggante bi yoo xam ne doo ci am tuyaaba doo ci am bàkkaar loolu mooy la ñu tuddee xuduurul kalaam mooy wax ñu tekkiwul dara loolu nag du waxtaan la am rek eh dama demee dëkk sàngam maa ngi sàngam nga bokkoon toog fii ñu ànd dem def nii dund jaar fii oto bi nga rek bu ngeen ko jox nangam nangam ci nañ toog jox yoo xam ne tuyaaba nekk ci bokk na ci nag ñuy tàggat jullit bi mooy fotoolu kalaam mu génne ko ko ci làmmiñ wax ci amul njëriñ rawatina bokk ci teggin yi nit ki di dolli ko ci yàlla ci bokk ñetteel ba iftaaru saaim fekk ku woor nga dogal ko kooku ci bokk sa mbokkum jullit ñu woor nga xam ne tane nga ko ci dara même boo ko senewul woon sax xam nga ne yow ab élève nga nit nga koo xam ne liggéeyoo sax waaye yaa ngi tuuti tuuti am na benn bés boo xam ne am nga loo mën a dogee ba noppi mu des dara nga defa diw kaay nga dogee suñu sëf kaay nga ànd dog jënd sa sàndax nga sës kafe teg ak sës mburu nga dog mu dog génn ak ngeen def kon dogal loolu bu ko nekkee mu ne ah dama la ko lebal tey bés waa kaay ma dogal la subaa yooyu nga ñëw dimbali ko dogal ko dimbali ko mu dogal ko ndax ki lay jox moo lay dimbali waaye yow mi ko yëgal ne aajo woo ba mu jox la yow yaa ko dimbali su fekkee ku am la yëg boobu moo war a ci biir jullit yi ma mën a tàggat seen xol yi ba nay génn seeni xol ak takk seeni xol ci alal mën kaa jox loolu mooy tàggat jullit ba koor gi jàll mu doon keneen mu doon keneen ñeenteel ba mooy jaamu yàlla ci bépp jëf boo xam ne xam ne bu baax la xam nga soxobul iman dafa bari yi nit ki mën a def mu doon lu baax lu koy indi ci yàlla kenn xamul mu toll yonente bi sallallahu alayhi wa sallam nee na jëf yu baax ëpp na juróom-ñaar fukki xaaj la tàmbale ci laa ilaha illallah ba ci romb lu lu baaxul lu nekk ci yoon mën naa gaañ nit wala mu mën a bënn pënoom wala mën koo tax sax doon tax nit ki sobe wala yu mel noonu nga ko loolu ci jëf yu baax yi la bokk xool nag soxobul imaan yooyu mu jëf yu baax yu bari yooyu nga fexe ne foo toll ku nekk di xool bu la ci gën a jege ngir nga mën koo jëfe loolu lu baax la li ci ëpp solo mooy loo xam ne nag sa moroomi jullit dañ ciy jariñ da nga ciy jariñ sa moroomi jullit jariñ kon jullit bi fu mu toll nag war na dara ci njariñ di jóge ci moom di dem ci bokki jullitam moo tax benn ci borom xam-xam yi dañuy wax ne jullit yi fu mu toll ku nekk war nañuy aajo woonte aajo woonte dend ak nit ki sax mu yor biiram nga wala nga jël suñu jëba bi nga nekk am jëlal bi fàggu nga foofu ab yoon ko tuyaaba yu seet sa yàlla yooyu xeex gis nga ko muy jëba jël ci nga ko koy dàllam sànni ko ci kanamam nga sol dem yiwu nga ci bul xeex kon ci gàttal daal bu mu sàmmoonte teggin yooyu nga xam ne mooy yu war yi ak teggin yi koy rafetal di ko baaxal boole koo xam àtte yi nag kooku danañ mën a jiima xam nag ban comportement ak wan melokaan lan war a mën a mel nag ci koor kon kayfa taqdi shahra ramadan wa taishuhu kama aatahu salafu saalih fan la lay jaar ba mën a paase weeru koor dundee ko li nga xam ne ak salafu saalih noonu lañ ko doon dundee léeg-léeg nit ki buy jàng siiratu salaf muy seen seenu dund day dem ba mu yàgg day day rus digganteem ak boroomam day rus ndax bu xoolee ni ñii aw nit lañ ñoo xam ne yàlla daf leen a bindoon yebal leen fii ne leen dem leen jaamu bi yàlla comme ni la bindee yow yebal na fi naan demal jaamu bi yàlla wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduun ñu góorgóorlu ba yow melokaan yii fexe ba jot li la ko ba mu nga yëg ko te du ma fexe ba mel noonu kooku wax dëgg yàlla gàcce bu taxaw nit ki la boo xam ne jamono yu nekk daf koy jaaxle lan moo xew ba tax nit ñi mënatuñoo am ñu toll ne ay ima yu mag yooyu nga xam ñoo liggéey liggéey bu rëy boobu ndax jigéen ñi dañoo mën a tudd jur nit ñu mel noonu wala société yi ci boppam ñoo yàq yàq ju bari ba tax former ay nit dañ a baax noonu mun ko am yàlla moo xam lan mooy sabab yi waaye jullit yi war nañu dellu siwaat seen bopp jàngataat bu baax siiratu salatu saalih ñu seeni doxalin ndax mu mën a xam fan nga ñu mën a jaar ba ak maa génération mën a amaat boo xam ne dañuy dund lu mel ne ñooñu nga xam ne alxuraan moo leen yaroon sunna moo leen yaroon ci ndax waxkat ba def nag ne wa kullu xayrin fi ittibaai man salaf wa kullu charrin fi ittibaai man xalaf yiw wépp wépp daje na fenn muy ci topp asalafu saalix waaye musiba mépp daje na fenn ci topp li nga xam ne ñu mujj ñi ñoo ko sos ñu mujj ñi liñ sos lépp li sori nit ñi diine la bi leen sori melokaan asalafu saalix dana romb rek ay tomb yu gàtt yoo xam ne ci melokaanu ak salafu saalax ci ramadan benn tomb bu ci nekk ma joxe ay misaal yu néew ci nan lañ ko doon dunde ndaxte leen nu mën leen a roy ci anam boobu ak salafu saalax julli dañ leen a tegoon place boo xam ne julli ñu mënu ko woon a bañ a bari fu mu toll ku ne dafa war di woor koor waru koo sori maanaam ramadan def waru ko boole nag ak koor moo tax imam bu mag ñu koy wax Saabit al Bunaani mu bokk ci taalibe Anas ibnu Malik yi taxoog moom lool def ne laa yakunu aabidun abadan aabidan wa in kaana fiihi kullu xaslati xayrin xatta takuna fihi haatani alxoslataan nee na nit ki duñ ko tudde mukk jaamukatu yàlla doonte mboolem yiw yëpp jikko yiw yëpp dajaleñ ci moom du tax ñu tudde ko jaamukatu yàlla lu dul ñaari mbir dafa daje ci moom mooy yan mu ne as sawmu wa salaa doon koo xam ne bu warkat la kii warkat la doonub jullikat ba xam ne kii jullikat la ñaar yooyu faaw mu daj Mubaarak ibnu Fadala dafay nekk li Saabitul Bunaani moomu taalibab Anas ibnu Maalik boobu nga xam ne ci salfu saalix la bokk bi mu demee ba feebar nekk ci feebaram bi xam ne ci la faatoo taalib yi dañoo toog ko doom nga ñu daan jàngal muy fàtt leen tey ba mu yàgg mu ne leen yéen day xam ngeen ne bii julli jiwuma maanaam na ma daan jullee lam usalli kama kuntu usalli na ma daan jullee xam ngeen ne bii julleewuma noona kon da daan taxaw di julli xëy na dafa toog walam aqdir an asuuma kama kuntu asuum xam ngeen ni it na ma daan woore mënatuma laa woore fii mu nekk walan aqdir an anzila ila ashaabi fa askuru llaha kama kuntu askuruhu maahum mu ne awmatuma kàttan it mën a wàcc ànd ak yéen di tudd yàlla di jàng xam-xam nan la ànd di ko def lu mu ca teg mu ne allahumma in xabastani an salaasin yàlla su fekkee ne tëj nga ma ba yàq yi mënatu bopp fala tadau fi dunia taatan ne ko kon doyal naa ci àdduna ginnaaw mënatumaa julli ni ma daan jullee mënatumaa woor ni ma daan wooree xam-xam beeg tudd yàlla bi mënatuma koo defee kon doyal naa nee na fa maata min waqtihi te bi daanee rek kàddu yi rek la faatu allahu akbar kon ñooñu seenu doyal ci àdduna ajuwul woon ci mbirum àdduna ndekete maanaam tooguñu ba mu yàgg ñuy doyal àdduna fekk lu xew mooy commerce ba moo perte am na ñoo xam ne dañuy doyal ci àdduna ba waral mooy yoroon na xaalis am na situation nit ñi dañ daan daw di ko seet léegi mu jëkk jëkk alal ja dem ne gisatul kenn ku ko jéem sax di làq mu ne doyal naa ci ñooñu situation bu mel noonu daawuñ ko faale daawuñu ko yëgal seen yaram comme ni ñu koy wax waaye la daan biir ci ñoom sa metti sa tiis mooy jaamu yàlla gi ñu mën a dugg kon melokaan boobu boo xam ne benn melokaan boobu def soo fexe ba jóg dem yóbbaale ko doy na doy na lii moo tax melokaan ak salafu saala ak seenu dund dafa seet seetiin boo xam ne jullit bi boo gisee mu soxla di ko jàngat di ko xam moo ni benn qualité boo ci jël rek doy na leen pour que lépp baax suñ jëlee ak salafu saalih wa qiyaam wal qiyaam itti jël di ko jàngat ñu joxoon koor seen diggante nag ak naafil la weeru koor weeru naafil la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ku fonkoon naafila la budul sax weeru koor waaye ci weeru koor itam daan naafila yu bari Aysa radiallahu taala anha mas nañ waar benn xale bu góor càmmiñam ne ko laa tadaa qiyaama layl bul bàyyi naafila guddi mukk فإن رسول الله صلى الله عليه wa sallam kaana laa yada'uhu yonente bi alayhi salaatu wasalaam musta bàyyi naafil la guddi wa kaana ida marida aw kasila salla qaa'idan mu ne àggoon na ci bu feebaree sax wala mu sonn day julli toog waaye du ko bàyyi kon naafil la ci mbir yi la bokk rawatina ci weeru koor عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يصلي من الليل ما شاء حتى إذا نصف الليل أيقظ أهله للصلاة danaan julli ba xaaji guddi jot mu yee ay soxnaam ak waa këram ne leen assalaa assalaa daal di jàng aay nga wa'mur ahlaka bisalaati wastabir alayha foofu borom bi tabaraka wa taala daf wax ne digalal sa waa kër julli te muñ muñal julli nangu ko muñal maanaam muñ nelaw ya muñ lal ba muñ neexi ko Abdullah ibn Omar bi nga xam ne mooy doomam ko Omar ibn Xataab yar ko dafa jàng laaya jii أما هو قائت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه borom bi tabaraka wa taala dafay tànn di kañ jaamukat yàlla yi nga ne bu guddee dañuy jaamu yàlla di taxaw ak di sujjóot kon loolu mooy di julli fekk liñ ci jublu mooy wattandiku sawara wattandiku sawara di yaakaar àjjana wattandiku àllaaxira lam làmboo ci mbugal di yaakaar yërmaande sunu borom tabaraka wa taala moo tax ñi taxaw guddi di julli Abdullah ibn Omar bi mu jàngee laay ji ak ci di ko xool ba mu yàgg mu ne zaaka Ousmane ibn Affan mu ne ci aaya bi wax kii Ousmane ibn Affan ibnu Abi Xaatim nee na li tax ibnu Omar laay ji mu ne Ousmane ibn Affan ko tax a jóg nee na li kasrati salaati amiril muminin Ousmane bi leyl nee na ngir bari jullit guddi boobu nag Usmaan ibn Affaan daf ko bëri woon wa qiraatihi xatta innahu rubbama qara alqurana fi rakaa mu ne àgg na ci léeg-léeg mu daal jàng alquran lépp ci benn rakka kooku mooy Usmaan ibn Affaan radiallahu taala anhu saxaabi bu màgg boobu mooy amirul muminin mooy saalisu xulafa rachidin ci denc ñaari doom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne kii jëllale naa noonu mu doon def wax ci julli ji waaye lu mu def ci yiw ci lislaam tax na yonente bi alayhi salatu wasalaam ne kii lu mu defoon ba weesu tey loolu mënatu koo lor hmm? lu mu defoon lu mu mënoon a def loolu mënatu koo lor ma barra Usmaana ma amila baada al yawm keroog bi jullit yi maree mu jënd teen ba teen ba nga xam ne yëgoon baa ko moomoon ñu ko tudde di ko maamuna mu jëndal ko jullit yi neneen mu roof fi sabilillah roof leen yonente bi alayhi salatu wasalaam ne maa darra Ousmane maa amila ba'd al yawm Ousmane nii de lu mu defati woon ëllëg it loolu mënatu koo lor mbiram baax la Ousmane moom yi mooy koo xam ne lenn ay kuréel yuy askanoon islam te buñ ko tuddee di ko muuru def ni kafe rahmatullahi alayhi Saïd ibn Musayyib wala ci xadiisu Saïd ibn Yazid nee na ñoom liñ daan naafila nee na alxaaris daan yaqra bil miin nee na ay ay nangami téeméeri aaya la daan jàng ci brasta xatta kunna naatamidu ala al asa nee na léeg-léeg boo indi si da ngay yor bant boo demee ba lor sukkandiku ci ci bant bi من طول القيام قال وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر nee na léeg-léeg daal di taw di naaj la dama xam ne buñ ko jëlee rek fajar jot na xanaa dañuy tëb rek daal di jëli ñu fajar allahu akbar kon ñooñu noonu lañ doon muñalee taxawaayu naaj la wute naaj nun tey nga xam ne imaam bi ba taxawee bu jàngoo tuuti rek naa ko léegi yëpp yëpp yëpp ak jur suulal doon wala jur bu tegal tuuti te balaa jeexal da nit ki tànk ndeyjoor bi dana ci taxaw juróomi juróomi minute bi tànk ma taxaw ci juróomi minute jël bëri fudd wokk def ay yëpp xam ne yëpp da nga ci fii moom fii moom nekkatul ci biir julli lii xalaatam mooy lii jàngay la te nag loolu doxal seetaane la doxal seetaane la waaye su fekkee ne xol daal ñu bind ànd ak alxuraan bi ànd ak lii ñu def li mu amee importance ak li mu ci séentu ëllëg kooku du yëg sax taxawaay du yëg taxawaay léeg-léeg nga gis koo xam ne ci match football lay nekk quatre-vingt-dix minutes mën na koo taxaw ci wu naaj ndax amul fu mu toog waaye ginnaaw li ñu xool daal bu muy dem ak ñëw rek yëngu na sax ci wu naaj la taxaw te waajoo bi mu taxoon imaam bi jàng bu doon jàng balaa suñun day jeex rek nga mu tàmbali di bënd kon loolu mooy nit ki nga xam ne seytaane ci bopp bi ba yàq ko mu aajo nag am lay jaaraat ba réparé boppam ba am yëg-yëg ci alxuraan bi ak julli bi bu gën a dëgër yëg-yëgu waa ji taxaw ci terrain bi muy taw wala naaj wi tàng te yëgatul tàngooru naaj woowu yëgatul taw bi lii ñu seetaan fan la jullit bi jaar ba dundal xolam bi ba mu àndee moom ak alxuraan foofu la liggéey bi nekk nee na dañ daan dem ba sukkandiku ci sunuy yet kuy jullit bi da ngay yor aw yet woo xam boo demee ba lott ci ngay sukkandiku ndax tànk yi dootu ko àttan xoola su ibn Rafla ci ñi yàlla baaxe ñu gudd fan ci la bokk imaam la woon itam daana ni ko Abu Nuaym nettalee ci téere bi ñoo ko am xiliya nee na Suwayd ibn Alqa Rafla daana jiite nit ñi qiyaamul layl xam nga boobu ñaata at la am cent vingt téeméeri at ak ñaar fukk fanaanee taxaw jiite nit ñi julli di jàng alquran toll ci ñaar téeméeri ak ñaar fukk kon ana ana ndaw ña ana sababul islam ya fuñ toll jàmbaari islam ya ñu jëm seenu ndaw jëmale ko ci ay caaxaan xanaa xalaatuñ mag ñu mel noonu mag ñu mel noonu nga xam ne dem na ba àgg ci néew doole dab na ko lépp néew do teew nam mokkalee alxuraan noonu la ko mokkale ba tey fa itti ca toll woon foofa la toll bànneex ba mu ko doon moom la koy yëg moo tax lu mu néew néew doole yëgul coono bi nga xam ne mooy tege ci kawam di continuer di jiite nit ñi ba am téeméeri ak sa ñaar rahimahumullah ñu ñëw ci beneen tomb gannaaw boo xam ne roy nañ leen ci roy leen ci naafil la jaaba nañ roy leen itam ci al infaq salaku wal infaq fi ramadan mooy dépense nangoo joxe ci weer wi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam liñ ko nettalee mooy ki gënoon a tabe ci nit ñi moo gënoon a tabe ci nit ñi daax cee joxe wa kaana ajwada ma yakunu fi ramadan su weeru koor masaan ñëw ak tabeem day yokk ak tabeem day yokk moo tax anas ne bu weeru koor masaan ñëw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy gën a tabee ngelaw maanaam loxo bi du tëye dara lu ñëw mu jox sallallahu alayhi wa sallam yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na afdalu sadaqati sadaqatun fi ramadan tërnit yi moo ko génne jële ko ci anas yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na sarax si gën ci sarax yi mooy buñ def ci weeru koor kon asaka ñu gën ci asaka yi mooy buñ def ci weeru ba tey kon ku yàlla baaxe ba nga di ko génneel asaka dana rafet lool nga tànn weeru koor di ko génne sa asaka ndax nga dajale yiwu génneel sa alal asaka ak yiwu dépensé ci biir ramadan ndax sa mbir bokk te lu gën a baax ci mbir yi comme ni ko yonente bi Zayd ibn Aslam nettali na nee na benn bés Omar ibn Xataab nee na yonente bi alayhi salaatu wasalaam dafa taxaw suñ kanam xutba soññ ñu ci ñu joxe fi sabilillah ne joxe leen fi sabilillah Omar nee na jamono yi mu koy wax am na alal ju ma bàyyi ci kër nee na ma ne bisub tey bii daal fas naa yéene ëppale Abubakar su ma ko ëppalee woon tey daal xam naa ne duutuma ko mën a ëppalee ci mukk nee na dem ci kër ga wàññi la ma am ci alal ma xaajale ko ci digg ba cinquante pour cent ñëw ni yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngoom nee na mu ne ma maada abqayta li ahlik ah Omar lii bari na di loo bàyyi sa waa kër nee na ma ne ko mislahu ma ne ko ah bari na kat waaye bàyyi naa ko lu toll nii nee na ne tuuti Abu Bakar ak seekub ëmbam ñëw na bëj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko maada abqayta li ahlik mu ne abqaytu lahum allah wa rasulah loo bàyyi ko waa kër nee na man bàyyi naa leen ko yàlla xanaa akub yonentam bàyyi naa leen ko yàlla akub yonentam nee na ma ne ko laa usaabiquka ila cheyin abada laa usaabiquka ila cheyin abada yow daal duutuma la jéem a rawati ci dara Omar loolu la wax Abu Bakar ne xam naa ne mënuma laa jiitu ndax tey jii daal ginnaaw ëppalewu ma la xam naa ne duutuma la mën a ëppale mbokk yi ñun mi nekkul ci kii joxe ne kay joxe ne kii joxe ne waaye xoolal la xoolal climat bi ñu doon dund jaww fi ñu doon ëpplee ci kenn ku doon fexee rawe sa moroom moo di fi sabilillahi lu ëpp li diw joxe kon ëppleente ci lu baax lu la fexe ba lu baax la ci ëpplee kooku sharia daf ko bëgg ci nit mën ko teeyee yàqul dara ndax luy soññ ñeneen a ci biir ñu bëree bëri ak ak lu ñu tuddee misaal yi mooy mooy yoon yëg-yëg yi dafa ne loo def lu tuuti tuuti njëkk sam dugg ca day tax léeg-léeg ñu dem sarax ñu jàpp ne lépp lépp lépp war a nëbb boobu xëy gi moom moo gën te yiw baax la waaye nag su ngeen ko feeñee day gën baax na wa in tubdu sadaqaati fa ni'ma hiya su fekkee ne feeñal ngeen sarax yi loolu baax na feeñal gi njëriñ yëpp am mooy keneen mën na caa roy def lu mel ne li nga def su ko defee mu doon ko yëg waaye nëbb gi nag daw jëfsal la kon daw jëfsal bi bu mu tax léeg-léeg place feeñal boo xam ne xam nga ne la nga si jublu mooy nit ñi def lu mel ne nii ma def su boobaa bul ko bañ loolu ñu bàyyi ko xel ndax ci fiqhu sadaqa ci la bokk talxam ibn yaxya ibn talxa ibn ubaydillah maanaam talxa ibn ubaydillah saxaabi bu siiw la kii ab sëtam la bu ñuy wax talxa ibn yaxya do ku ñuy wax yaxya mu doon doomu talxa moo ko jur nee na sama maam ji nga xam ne moo doonoon soxna talxa ibn ubaydillah saxaabi bu màgg boobu nekk li na ma nee na ma benn bis sama maam Talxa dafa dugg si ci kër gi mu gis bët yi xóot kanam gi daal mel noo xam ne dafa mel ni ku nekk ci njàqare soxna si nee na ma ne ko maa ngi araaka kaalixal wajji waaw lu xew ba ko xarkaram bi mel ni mu mel tey ndax dafa am benn sikki sàkk boo dégg ci sama mbir man soxna say wax ak moom de nee na mu ne ko déedéet yow dëgg yàlla ci soxna yi gën ci soxna yi ci nga bokk la ni'ma xalilatul soxna yi jullit yi gën a baax ci nga bokk aw jee benn problème nee na ma ne alal ji nga fi bàyyi woon ci la seen xel dem nee na mu ne ma anamu nee na mu ne ko mi ngi nee na mu ne ko séddale ko na mu génne alal ji jox ko mu séddale ko ba mu jeex ba benn dërëm desu ci nee na ma door a gis mbir mi ci xar kanamam alal ji mu dencoon bi muy ak ci njàqare li ko ëndi mooy fàttaliku na ne ndekete dafa denc alal wallahi yëg-yëg la boo xam ne suñ koy jàngat day mel ne ay léeb waaye ñoom suñ yëg ne am na jullit bu xiif ci kaw loolu yan ko diis la boo xam ne du yenniku ne féeg lañ dencoon jeexul loolu lañ doon dund mooy li loolu ci yonente bi sallallahu alayhi wa ko jële benn bés dafa julli ba sëlmal rek jéggi nit ñi jéggi bu gaaw def asalaamaaleykum wa rahmatulah asalaamaaleykum wa rahmatulah daal di jóg romb nit ñi jéggi leen dugg te kër génn ne mbuus moo xam ne daf xaalis ci nekk daal di dikk tàmbali di ko séddale ba mu jeex ñu jeexee ne laa ilaha illallah alal ji ma dencoon xaw na maa fitnaan xaw na maa fitnaan séddale ko ba mu jeex sallallahu alayhi wa sallam loolu ci ñoom lañ ko jàngee nee na xal xas séddale alal jooju ba mu jeex sàkk nee na ma laaj sama maam ne ko kam kaanal maal nen mu ne ko alal mu doon dem di ko séddale nu mu toll qaala arbaa miati alf quarante mille suñ ko waxee ci jamono yooya ci dinaar kooku bu doon suñ jamono tey ji bu la neexee neel quarante millions nee na noonu la tolloo mu séddale ko mu jeex tàkk kon ñii li moom koy dañ ko daan fàggu di ko wut nag ca yoon yam jaaroo nam bu caa sonnit nag di ca ñàkk waaye bu ñu sonnee ba noppi itam nag alal ji nekkul ci xol saa bu dara askee loo xam ne soxla woon a alal bi te loola di bunt bi yiw foofu mooy seen dëkkandokaay foofu la marché nekk seen diggante ñu naan ku raw ku ëppale ku dàq joxe foofa la ñu fi nekk kon ci joxe alal noonu joxe ñam nag joxe ñam fan lañ ci nekkoon xam ngeen ni joxe ñam moom borom bi tabaraka wa taala ci boppam daf koo tagg bi muy tagg jaamam yu baax yi daf ne wa yut'imuuna taama ala xubbihi miskinan wa yatiman wa asira nee na ñooñu jaamu yàlla yu baax yi borom bi nee na bokk na ci ñoom bokk na ci seen jëfee mooy aw ñam dañ koy bëgg ba noppi di ko joxe maanaam li nga aajo wa yut'imuuna at-ta'aama ala hubbihi loolu lu ma ko am na ñoo xam ne bala ñoo li ñuy def ba la ca desoon mooy benn ñu gis ko torox wala ñu sànni ko sa mbalit wekki ko wala joxe ko moo ko sës nga door koo joxe foofu ku ko dimbali ci tuxal mbalit ku ko dimbali ci doxal mbalit la lay def waaye forcewul waaye wa yut'imuuna taama ala xubbihi ñam wum aajoo wala wum bëgg la wum soxlaa lekk la mu jël ko woo ko ko aajoo jox ko kooku mën naa nekk miskin mën naa nekk ab jiriñ mën naa nekk sax ko ko def périsson la kon loolu lu ma ta bàyyi xel la ñooñu buñ defee loolu ba àggal yan melokaan lañ ciy teg ak yan wax lañ ciy teg dañ naan innama nutimukum li wajhillah lii nu leen jox yàlla rek a tax la nuridu minkum jazaan wala shukura yow mii may sarax yëkkati jox la soxlawuma nga fay ma dara soxlawuma sax ak cant inna naxaafu min rabbina yawman abuusan abuusan qamtarira li tax ma lay jox mooy damaa ragal bés boo xam ngi ci kanam di ñëw te bis bu ne ma gën koo jege te bis boobu bu agsee bisu njàqare la bisu naqar la bisu tiitaange la kon ñooñu ngi joxe lañ soxla ci seen ñam biñ koy joxe yàlla rek a tax seen tuuñ ak cant wala fay buy jóge ci ñu koy jox waaye ragal mbugalum ëllëg moo tax ñuy joxe kon loolu sell na moo tax borom bi tabaraka wa taala lam ca teg fa waqaahum allahu charra dalika al yawm yàlla tegal leen ayu bis boobee ñu ragaloon yàlla tegal leen ayu bis boobee ñu ragaloon fa waqaahum allahu charra dalika al yawm wa laqaahum nadratan wa surura mu ubbil leen bunti naataange ak mbég wa jazaahum bima sabaru jannatan wa xarira mu fayaleen ci sababu seen muñ googi mu fayaleen ajjana ak la nekk ci biir ci xeetu xéewal ak muñ mi ngi foofu ndax nit ki lim soxla nga xam ne wóor na ko ne lii bëgg na ko soxla woon na ko mu jël ko joxe ko ngir yàlla ak ragal sawara ak tàggat xol bi mooy tax doomu aadama bi def waaye ci du doom rek bu ko def tax lan tanaalul birra xatta tunfiqu mimma tuhibbun du ngeen mën a am tiyaaba lu dul da ngeen a joxe ci li ngeen bëgg loo xam ne da nga koo aajoo waaye bala ngaa joxe dara da ngay dem ba soxlaatoo ko déedéet da ngay joxe ci li nga soxla loolu moo tax salafu saalix kaanu yaxrisuuna ala itaami taam joxe ñam dafa bokkoon ci seenu dund li nga xam ne mënuñu ko bañ a def moo leen gën a doon sax lu bari nag ci yenn ci xeetu joxe ñam boobu mën naa doon dañoo fekk ku xiif ñu woo mu ñëw lekk wala dañoo xam te mbokk moo xam ne mbokkum jullit la wala mbokkum deret la jege ñaare la dëkkandoo ñi xam ne ku sonn la ñu togg ñoo jox mën mën naa bañ a doon baax te sonn mbokk moo xam ne sa dëkk loolu la ko protéral togg jox ko moo tax charte ni ci joxe ñam ne ki ñu koy jox toujours rek na nekk faqiir mën naa bañ a nekk faqiir waaye joxe gi ñu lekk rek kooku te yàlla boppam la moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ya ayuha nnaas yéen nit ñi afsu salaam siiwal ngeen nuyoo seen diggante wa at'imu taam joxe leen aw ñam wa silul arxaam jokk leen seenu bokk wa sallu bil leyli wa naasu niyaam julli leen guddi ci waxtu wi nga xam ne mooy waxtu ya nit ñi di nelawe tadxulul jannata bi salaam yi ma leen wax ci ngeen ko defee da ngeen dugg àjjana ak jàmm da ngeen dugg àjjana ak jàmm siiwal nuyoo assalaamu aleykum wa rahmatullah waxin wu leer nga xam ne da ngaa nëb lu bari ci mbokk yi nag salaam ko salaamaaleykum salaam wa rahmatullah képp lu ko wax asalaamaaleykum wa rahmatullah siiwal ko bañ dégg mu tasaaroo seen diggante koo dajeel itam xam ne jullit la nga ne ko asalaamaaleykum wa rahmatullah wala alal lu mu néew ne asalaamaaleykum moom it mu delloo la lu mel noonu loolu mooy siiwal na yow wa at'imu taam joxe ñam wa silul arxaam jokk seenu bokk jokku bokk jaamu yàlla yi ci la bokk wa sallu bi leyli wa naasu niyaam mu ne julli leen guddi te fekk nit ñaa ngay nelaw lii mu leen wax su ngeen ko defee da ngeen dugg àjjana ak jàmm kenn ci asal xasaaba daf ne man de ma woo fukki nit fukki nit ci samay àndandoo invité ca kër ga ñu ñëw añ wala ñu ñëw reer loolu moo ma gënal ma goreel ab jaam moo ma gënal ma fekk ab jaam ma libéré ko doonte jaam boobu sax dañ koo tooñ def ko mu nekk ab jaar nga xam ne ci doomi yonent yàlla ci la bokk ci sëti Ismaayil kon ñooñu bu ñu comparé yiw yi joxe ñam boole woon nañ ko ci yi gën a kawe li nekk na mbokk julli bi bëgg noo toog di ko waxtaane nii mu jàll waaye dama bëgg kenn ku nekk yéen kenn ku nekk jéem a garanti ne ñii ma ci dégg fas naa yéene ramadan bi balaa jàll li ma ci mën danaa ko def moo xam ci julli moo xam ci xiyaam la moo xam ci joxe alal la moo xam ci joxe ñam la lu bëree bëri ak salafu saalex dañ daan isa ci seen fëppoo a woor ba doon jot nga defar ko ndogu miskin boo xam ne ma ngay dox wala sa xel dem ci moom nga ne toogal yëpp diw mu foog yëpp loolu mooy ak isaar xam naa ne diisaar man nii la sii nii moom ko gën a aajoo xobal yëpp ko ñu foog yëpp ko bokk na ci ñu siiwoon lool ci di def lu mel noonu Abdullah ibn Omar ibn Xattaab këram daana dem sax ba jafe-jafe di ko bëgg a am diggante nga waa këram luñ defar lu nekk ci ñoom ba teg ko bala ñoo gën ne ñam ñi danañ ko lekk mooy dañ koo lekk ba noppi waaye suñ dikkoon ba fukk fas mu joxe ko wéyee ko wéyee bi waaye nag yar ba tax na yar ba tax na lu mbir ma tar tarit dañuy toog nag rek di ko xool waaye ne ko nii du dem jàpp naa ne lu bare bari ci nit ñi tey seenu njaboot buñ toogoon ba tiim ndab la soxna yaag gone yaag surga yi ñëpp kenn ku ne tiim mu jékki-jékki ne tobal ndab li yóbbu kër diw ka koy toog boo wëttu ay jafe yi nekk nekk mën na ko dal hmm? waaye nag ñooñu dañoo tàggatoon seen bopp di tàggat seen njaboot yi dem ci dundal yëg-yëg yooyu ci seen biir bokk na ci ñi ci siiwoon imaam bu ñu wax Daawud at-Taahi bokk na ci ñu ci siiwoon ku ñuy wax Malik bokk na ci ñu ci siiwoon ci imam Ahmad ibn Hanbal dañuy tudde al isaar isaar ci ndaw sax nag lañu wax ne mën ne bu dee ci bëccëg bi aññee bi mën a xel nit ku xiif waaw waaw nag ba dem jot nga fab ndaw la di ko joxe dëgg yàlla maqaama bu kawe kawe lu bëree bëri ci salafu saalex dañ daan woor ñoom ba noppi defaral toggal ñam seen yeneen mbokki jullit woo leen ñuy ñëw nga di leen defaral di leen jox ñuy lekk te fekk yow yaa ngi ci kool ñooñu bokk na ñi ci gënoon a siiw ci ñuy def loolu al imam al xasan al basri daanaka faral di def loolu loolu nag kooru ngàtt ba moo tax ñu waaye bu dee ramadan moom ñëpp dañuy woor waaye daf daan woor kooru naafil la ngir jaamu yàlla nga mat mu defar aw ñam woo ay jullit ñu toog mu di leen jox ñuy lekk moom mu gën caa bokk Abdullah ibnu Mubarak ci ñooñu la bokk moom itam ñu siiw lool ci fànn boobu ku ñu wax Abu Siwaar al Adawi kenn la ci borom xam-xam yi ak salafu saalih ñi nga xam ne Buxaari jële nañ ci ñoom xadis ci la bokk nee na jàkka jii ma nekk di nga ne banu adi ñoo ko tabaxoon kon mooy seen jàkkay quartier mu ne suñ jàkka jii dund naa feeg aw ñoo xam ne amul kenn ci ñoom koo xam ne mas naa woor doge aw ñamam mas naa woor doge aw ñamam na koy joxe ba noppi xanaa seet yu sew ay tàndarma ay ñëpp mu doge ko waaye kenn ci ñoom mës ko dog ko fekk moom dong moo diin ndogoo nee na su gisee ñeneen ñu mën a dogaale mu dogaale leen su ko gisul nee na day fab aw ñamam yóbbu ko ci jàkka ja ndax mu am fa ñu fa dogandool waaye loolu ba nekk woon seen bopp nee na woor ba noppi rek tool moom daal di dox moom su ko kenn jëkkul dana jël ñamam yóbbu ko ci jàkka ja pour nit ñi dog ko war mooy dama xam tuyaaba jëre nekk ci loolu te mbokk yi joxe ñam li tax mu màgg lool dafa bari yeneen ni jaamu yàlla yu ciy jóge yu ci yu ci juddoo kii joxe ñam ak cofeen dana dox diggante ni ñu ngi koy jox te kenn ku ne xam ne ak tawaddud ila ixwaan muy wane sa cofeel ak sa mbëggeel ci sa mbokki jullit loolu ci bopp ci jaamu yàlla yi la bokk bokk na ci li ciy mooy ñu baax ñu ñu invité ñu ñëw toog mu toog a ndoog ñoom majalis saalihin jataay yi nga xam ne nit ñu baax ñoo koy séq bokk di ci waxtaan ci waxtaan bu baax bokk sax di waxtaan ci xam-xam fekk moo leen dajale invité leen bokk di lekk loolu ci li ci juddoo la bokk bokk na ci yoon bi ñuy fàggu ci li ñu baax ñi ñu dajale di leen jox ñuy lekk suñ ko jógee danañ am kàttanu jaamu yàlla kàttanu ko amee ci sababu lii mu leen jox lekk moom day am tuyaaba ci seen jaamu yàlla yooyu ñuy def bokk na ci ñuy juddoo ci joxe ñu lekk ba tey moo di yar bakkan bi bakkan bi nga yar ko ci joxe ak tàggat ko ba mën a mujj ci nay bokk na ci li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ne ku dogal ku ku fekk ku woor nga jox ko ndogu nee na am nga yool ba tël ne ab yoolam te du yàq dara ci yoolu kookee woor kon juróomi yëfangoog yoo xam ne benn bu ci nekk war naa tax nit ki xër aw ñamam ay nit di suñ jógee ci loolu alsalafu wal ijtihaadu fi qiraati alquran salafu saalex nag ak jàng alquran rawatina nag ci weeru koor weeru koor xam nga ni mooy weeru alquran shahru ramadan alladi unzila fihi alquran kon jaamu yàlla bi lu mu sàgganoon sàggan ci jàng alquran bu weeru koor ñëwee war naa jéem a góorgóorlu ba tàggat boppam ci jàng alxuraan nag bu wér te jéem a góorgóorlu ba bu weer koor wa jàll it nag mu yor xisbu yow mii maanaam yor loo xam ne da koy sase boppam ci alxuraan bis bu set mu continué di ko jàng xam ngeen ne weeru koor bu masaan ñëw ni mu saxe ci yu wér jibril daf daan wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko déglu alquran muy jàng yudaarisuhu alquran la xadis di tari di tari jibril di ko déglu kon kooku daf lay jox importance boo xam ne weeru koor bi na am fi kulli yawmin marra bis bu set benn yoon benn yoon boobu borom xam-xam yi nee nañ benn jotaay lañ ci jublu am ci ñoo xam ne dañ ne mooy alxuraan yëpp dana ci jaar ba mu jeex bés bu set moo tax lenn ci ak salafu saalex dañoo defaloon seen bopp ay sas ci alxuraan maanaam ay dox am na ci ñoo xam ne daan wàcce alxuraan semaine bu nekk maanaam juróom-ñaari fan séddale nag alxuraan bi ba semaine bu nekk ñu wàccee kaamil am na ci ñoo xam ne par fukki fan fukki fan yu nekk danañ wàcce benn kaamil kooku ñu ne wàcce kaamil nga woo booloo mën a daje kenn kon yoru paas mën a mën a mën a suuf ñu ne wàcce nañ kaamil bi mu jeex jàng ko yow sa bopp lañu wax ci fukki kat yi nga xool mooy séddale kaamil bi bu ban koo jàng seen njàngum alxuraan moom nag léeg-léeg ci biir la daan doon léeg-léeg itam njàngum alxuraan jafe la daan mu ànd ak julli pour cité ci ñenn pour ñu xam lu doonoon seen programme ndax nit al imam Shaafi'i Ramadan sax na ne daana wàcce juróom benn fukki kaamil soixante fois mu jàng ko kon bis bu ne ah, ñaari yoon lay jàng alquran ah ñaari mu wàccee ñaari kaamil alquran yoo xam ne moo koy jàng ànd ak ak teelu qataada ci ay matu salax ci la bokk imam Shaafi yi dañu wax ne fii xëyri salaat maanaam bokkut ak lam maanaam ab dog la ko defar boo xam ne daal dana wàcce ñaari kaamel ci bis bi waaye bokkut ak li muy naafila bu guddee loolu leneen la allahu a xataata juróom-ñaari fan yu ne la jëloon def ko muy programme am waaye loolu mooy bu ramadan ñëwagul bu ramadan ñëwee ñetti fan yu nekk mu wàcce benn kaamel al imam xataada juróom semaine bi daf ci daan wàcce benn kaamel bi weeru koor ñëwagul bi weeru koor ñëwee rek ñetti fan yu nekk benn kaamil bu ci fukki fan yu mujj yi defee guddi gu ne mu wàcce benn kaamil loolu moo doonoon programme ci dundam gépp yu ordinaire yi daal semaine bu nekk ah, benn kaamil ramadan dugg si mbir mi soppi ñetti fan yi rek benn kaamil fukki fan yi ci ramadan ñëw na fukki fan yi ci ramadan ñëw na kon bu nekk mu wàcce benn kaamil programme mënta ñàkk mënta lu bari ci nit ñi li leen xañ mën dara mooy ñàkk programme ñii dañu tërlante bopp ay programme yore lu bari ci moom buñ la laajoon luy sa programme ñaata fan ngay mokkal alxuraan ngay ngay jàng alxuraan jaar defe naa kenn ku nekk bu waxee ak dëggam boo da nga ci gis programme yoo xam ne ku la naan at mi at mi danaa ko ci wàcc benn wala koy wax ne sax at mi jàll na xob jàll ci alxuraan benn yoon wala amut am na ku ne ah xam naa ne jazakumullahu xayran al imam Jibril daf daan def bu weeru koor duggutee mu bàyyi lépp mu bàyyi lépp jàngaleetul xam-xam jotaayeetul sax jotaayi xam-xam nu muy def yuqbilu ala tilawati alquran min al mushaf weeru koor duggute na daal bàyyi na programme yi nekkoon yëpp jël na kaamilu alquran jàng alquran rek léegi kon bu wooree jàng alquran la def bu guddee mi ne naa billa alquran loolu moo tax al imaamu Malik ibnu Anas nga xam ne mooy taaliba Zuhri melokaan boobu jëlee na ko ci mom al imaam Malik loolu moo doon programme weeru koor kenn mënu la ne Malik moo ma jàngal lii boo xasee dugg si arrêté na ay juróomam la muy def tey mooy iqbal ala alquran moo tax mbokk yi ci programme yëpp yi ñuy def war nañ cee bàyyiwaale xel ne weer wi weeru alquran la moo tax programme yi ba mu ba mu not yi ñuy def nii fekkee ne fàttalante nekkut sabab si fàttalante bu mënta ñàkk nañ ko def te wattandiku mu not alquran ci weer wi weer wi weeru alquran la te li jaadu mooy fukki fan yu mujj yi soo xasee jot moom lépp dañ ko war a coupé moom conférence yëpp dugg yi génn yi yëpp iqbal ala alquran foofu la xeet yi war a war a dellu ci loolu lañu war a bàyyi xel al imam sufyaan ak sawri dañuy wax ne imam sufyaan bu ramadan na fee dugg taraka jamia al ibadat ñenn jaamu yàlla yi nga xam ne da ka daan sonne yëpp torkate bàyyi wa aqbal ala qiraat alquran waaye ni mu ko daan jàngee daana wàcc kaamil bi ñetti fan ñu ne mu am benn kaamil kon jàng mu kay la doon def mu ànd ko seetal ko al aswad ibn yazid kenn ci ay may mag yi la daf daan jàng alquran ñaari guddi yu nekk mu jullee benn kaamil ñaari guddi yu nekk mu jullee benn kaamil noonu la daan Ibrahim ibn Yazid an-Naxa'i loolu la daan waaye ci fukki fan yu mujj yi la ko daan def fan yu def ci weer yi yi fan yu mujj yi par fan la doon def fan yu nekk mu wàcce benn kaamil bu defee fukki yu kon dina wàcce juróomi kaamil ci fukki fan yooyu mujj ci weeru koor kon mbokk jullit bi programme buñ ko ñàkk ci alquran am na aw këyit buñ préparé bi yoo xam ne proposition la pour programme alquran danañ ko bàyyi ci mbokk yi ku ko bëgg a photocopier nga xool fooy jaar ba gis mbokk mi Omar Diallo wala Omar Sall yaakaar naa ku ko jox ko ci bërëb waaw borom dana ci mën a génn mu dem ko négocier ko jox la kon këyit boobu am na ci arab am na itam ci français ku ci soxla bu arab bi ne bu arab bi la soxla ku ci soxla bu français bi ne bu français séddale nañu nit ñi ci këyit boobu ñetti kuréel kuréel yi ñi nga xam ne seen idde kawe na lan mooy seen programme ci bis ñooñu juróomi fan yu nekk ñu wàcceb kaamil ñu la nit ñi toll léegi ñu seen yitte kawe mooy ñi nga xam ne fexe nañ ba juróomi fan yi ñu wàcceb kaamil ñi ne ci digg bi fukki fan yi ñu wàcceb kaamil ñi ne ci suuf ñoom it ñu baax lañ fukki fan ak juróom yi nekk ñu wàcceb kaamil kon ku jëloon programme bi ci kaw bu ko def ci weeru koor jàll nga fexe nga continuer bi ci digg bi wala boo ko mënul nga wàcc ba ci suuf kooku yiw bu rëy rëy ci ngay nekk ba weeru koor del si fekkaat la ci te bu boobaa maa la garanteel ne da nga gis farq différence bu mag sa diggante fa nga nekkoon ak fi nga nekk mu beneen ramadan bi ci def di del ci waat kon ñu daal ci am salafu saaleh wal i'tikaaf l'i'tikaaf jaamu yàlla la boo xam ne ci jamono yu ne lañ ko mën a def waaye ci weeru koor lañ ko sunnaane yonente bi sallallahu alayhi wa sallam da daan def weeru koor wu ñëw fukki fan yu nit ñi daf koy lextikaaf lextikaaf mooy lan mooy bàyyi lépp ñëw toog ci biir jàkka ja dëkk fa nekk ci xeetu jaamu yàlla yépp nag rek ba weer koor bi jeex fukki fan waaye at mi nga xamee ne alayhi salaatu wasalaam ci la génne àdduna ñaar fukki fan la ko def defu ko fukki fan waaye ñaar fukki fan am na ko ci jàkka yoo xam ne dafa leexu kaaf kon leexu kaaf ci jaamu yàlla yu màgg yi la bokk yoo xam ne làmboo na yiw yu bari ndax leexu kaaf mën naa ànd ak jàng alquran mën naa ànd ak julli mën naa ànd ak di tudd yàlla mën naa ànd ak di ñaan lépp yiw boo xam ne nit ki daf koy def ci xeeti yiw yi xeeti jaamu yàlla yi l'Afrique fond ko koo yóbbul lu bari ci nit ñi nag dañuy yaakaar ne l'Afrique moom lu jafe-jafe la lu mettee mett wala lu diis a diis waaye li ko waral mooy ñàkk koo essayé nit ki li mu essayé wut te daan na ko rek day defal dafa jax bàyyi kër ga daal ñëw toog ci jàkka ja bàyyi kër ga ñëw toog ci jàkka ji guddi ak bëccëg nekk ci ay jaamu yàlla koy waajal nag koy waajal ndax boo ci nekkee it mën naa am ku lay indi li ngay lekk mën nga koy defaral sa bopp it nag waxtu dog jotee nga defar sa ndogu su yàlla dogalee jàkka yi mel ni war a mel sax nag bis bu ñu demee ba suñ jàkk yu mel ni ñu war a mel ci ramadan jàkk la fay nekk ci ay ñam day doy sëkk ba kuy entutaat da ngay ñëw rek entutaat duutoo soxla looy préparé sa bopp waaye jàkk ji moo la koy waajalal comme ni alxaram yi di mel bis na ko Makka ak Madina ku ko doon entutaat doo xalaat man lu may lekk doo ko xalaat bu dog jotee boo demoon Madina bis na ko ka misaal boo dugg say jàkka ji di dugg da ngay xale yu ndaw ñu lay lewaayo kaay dimbali ñu toog ci suñ place pour doge foofa léeg-léeg dañ lay xëccoo sax kii jàpp sa loxo kii jàpp ci bii bi kii ne ko maa la ci jëkk maa la ko fee la bëgg a dem ñëwal nangam kon suñ demee ba suñ jàkka yi nag ko mel noonu kii yow di am ci saa yi yoroo xalaatu naan li ndax soxna saa koy indi wala du may yóbbaale kenn la wala du may def ndax xalaat yooyu day génn ci suuf du nekk sa bopp bu boobaa li gën a tàgg li ko ci lixtiraat kon mooy bi nekk ci fukki fan yu mujj lu tax ndax kooku la ñuy tàkke laylatul qadar kon li ñu tudde xalwa xalwa su fekkee am na xalwa boo xam ne sharia nangu na ko mooy li am kaaf mooy alxalwatu shar'iyya xamuñu ba dangay dem ne diw daanam daa dugg xalwa ci bëri bu duggee xalwa ci yeneen la ñuy nekk wér da ay turi jinne wala turi seytaane turi malaat wala yeneen waaye nag xalwa boo xam ne da ngay dàkk weeru koor te defe ko ci jàkka ja lépp yam ci jàng alxuraan ak julli ak tudd yàlla ak ñaan loolu mooy xalwa bi nga xam ne sharia la moom loolu moo tax salafu saalex li'tikaaf dañ koo boole woon ci seenu dund yor nañ ci ay chantier yu bari yoo xam ne waxtu wi moo xam waaye soo daal ku jàmm kàddu nga jàpp ne salafu saalex ñoom ñëpp seen programme la woon ne weeru koor moom mënut a jàll te i'tikaaf moo xam nag day mat wala day néew ndax i'tikaaf li ci gën a yoo xam ne am nga ko ci jàkka nga def ko waaye neenal ko moom moom gën bokkul ci seenu doxin bokku ci woon asalafu saalex ak laylatul qadr yi yëpp ci biir koor la nekk yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ne man qaama laylatul qadri imaanan wa ihtisaaban gufira lahu ma taqaddama min dambi ku taxaw laylatul qadr di ko julli di ko jaamu yàlla yàlla rek tax jéggal nañ la sa bàkkaar yi weesu woon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf daan dàq laylatul qadar di digal saxaaba yi neen leen dàq leen ko daf daan yee sax waa këram bu fukki fan yu mujj yi desee laxasaayu alayhi salaatu wasalaam ngir ñoom ñëpp ñuy dàq laylatul qadar laylatul qadr nag la chaque année ci fukki yu mujj yi ci la nekk la chaque itam ne ci guddi yu tóor yi ci la nekk yu nekk impair maanaam guddi gi vingt et un vingt trois vingt cinq vingt sept vingt neuf yooyu genn la at mu nekk dañu gi ci ëpp yaakaar nag ni ko Ubay ibn Kaab radiallahu taala anhu waxee ni ci ëpp yaakaar mooy doom ñaar fukk ak guddi bi vingt sept moo ci ëpp yaakaar waaye nag tekkiwul ne booba rek lay doon kon dañ koo nëbb ngir dimbali la ndax bis bu nekk nga jàpp ne tey la te nga wattandiku nag loolu dàq laylatul qadar nga xam ne ci bis yu tool yi la tax nga jaamu yàlla ci bis yu tool yi di ci nekk teer bu ak tey nga bañ a jaamu yàlla ndax bis yëpp yor aw yiw de bis yëpp nii ak bële nga xam ne bis bu nekk rek nga nekk ci aw yu ndax nga def laylatul qadr Aïsa radiallahu taala anha laaj na yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waaw su ma dajee woon ak laylatul qadr lu may wax lu may wax gan ñaan nga ma dénk ma wax ko yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko quuli allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni yàlla day yow ab jéggalaa kon nga maanaam ab jéggale kat nga ku loo ko a wax rek bañ la yoon bañ la téeméer yoon bañ la yoon jël wëñ na sax koy baaraam wala nga yor kur déedéet toogal rek di wax allahuma innaka afuwun tuhibbul boole ko ci say jaamu yàlla ci fukki fan yu mujj ci guddi kon saalih laylatul qadr daana leen jaral lu nekk nelaw moom daanaka góore suñ koon seen programme boo xamee ne fukki fan yu mujj yi xas na jot loola moom góor ñëpp ak jigéen ñi ñoo ci àndoon dëppoo tomb bi ñu mujj nag dañ koo mujj ndax moo doonoon bi war a jëkk mu di as-salafu saalix wal ixlaas yi jàll yépp nag ñu doon ko def muy julli gaag koor gaag joxe ga fi sabilillahi ga yëpp nag sell gi ca àndoon foofu la ñu rawee woon nit ñi ga rek doyu waaye sell nga fa la yëf nekk bari ana kuy woor te kooram lam ca jële mooy ak xiif aku mar bari ana kuy naafil la di julli te julli ga lam ca jële mooy sonn ak yàqi nelawam yàlla na yàlla mosal ci loolu loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci mboolem yi muy wax woor weeru koor week naafila ci weeru koor week dàkk laylatul qadr bi yooyu yëpp da ngay gis mu ne imaanan waxtisaaban imaanan waxtisaaban fekk la muy def lépp yaar yooyu tax mu koy def gëm yàlla ak sàkku ko yàlla kon loolu mooy lan mooy ixlaas loolu mooy sellal ak salafu saalex li daan wane seen ixlaas ci koor ak ci lu dul koor sax moo di dañoo xéroon ci nëbb seenu jaamu yàlla attaabici jalil ayub assaxtiyaani jële na ci xammaad ibnu zayd jële nañ ci Hammaad ibnu mu ne Ayyuba day léeg-léeg daana toog di xadiis di waxtaan ak nit ñi leen waar bu jekkee ba xol bi àgg ci mu war jooy ne day jàpp ci bakkan bi jël musoor bi daal di ñangu daal di sewaa ji sojaka metti sojaka metti fekk xol baa jeex mu jooy waaye bëggul nit ñi xam ne day jooy ñu ne ah moo ragal yàlla moo mel nii loola lay moo tax day ñan bu ñandoo itam danaan saje ka metti waay waaye néew damaa daj de ndax bu ne damaa fekk ko wax lu gën waaye nee na saje ka metti wax na dëgg sëñ lu metti la waaye taalu gën boobu moom xam na ne li mu ci jublu mooy day nëbbu jooy yi muy jooy ndax xolam bu sedd bi seet ci waaraate bu ñu waare Muhammad ibn Waafi dafay wax ne adraktu rijalan kaana rajulu yakunu rasuhu maa rasi imraatihi ala wisaada wa qad balla maa taxtahu aw maa taxta xabihi min dumuihi laa tashcuru bihi imraatu Muhammad ibn Waafi nee na dund na ma ak ay nit yoo xam ne nit daana la ci lalam lenn ngegenaay boppam tege ca bopp soxnaam tege ca muy jooy ba ngegenaay li tooy te soxnaam bi yëg ni moom mii day jooy ko waral mooy nëbb nëbb ko mi ngi xalaat ci yàlla mi ngi xalaat sawar mi ngi xalaat ci adduna ba àgg jooy waaye jooy yooyu daf koy nëbb lu mel nii nag daraa ngi fi fiq lu ma ta bàyyi moo di mën nga ne Muhammad ibn Wasi yi lu mu xamee loolu kon lu mu xamee loolu ginnaaw waa ji moo soxnaam ko nekkoon te soxna si yëgu ko kon lu ko ko ndax tontu am na hmm? mooy lan ñu nee na mën naa dem bay génn àdduna wax ko waaw dem bay génn àdduna ne day daanaa def naa ngam ak naa ngam ak waaye ñooñu ñu bëri bu ñu daan génn àdduna njàqare la ñu àndal déet Muhammad ibn Waasa moom du saxaabi sax gannaaw la ci taabiroon yi la kooku kon du waaye li am mbokk jullit yi mooy moom ñii ci boppam da caa bokk moom ñii da koo def waaye bëggul na def naa ne dund naa ci jamono joo xam ne am na nit ñoo xam ne saalih def say dégg def leen di dégg door a xam li ñuy wax moom ci boppam daf ko daan def loolu rek moo mën a am daana tëdd soxnaam moom Muhammad ibnu Waas ay jooy ci kër ko ngir ragal yàlla mu nëbbu jooy ya ba soxnaam sax ko xam ne day jooy kon kooku boo ko tëgg ñuy yóbbu dóor seen bopp ci ay bant ak ay yëf mu dolli adraku rijalan yaqumu ahaduhum fi safi nee na daje na maag gaa yoo xam ne kenn ci ñoom da daa nekk ci sàppe si di jooy ba lex yi rangoo ji daf ci wàcc waaye ci dem nag moom ci wetam sës si moom ci biir sàppe si yëngu na day jooy kon jooy yi amul yitte yàqalu ko dara ci li muy def waaye dëgg yaa ngi tuuru daal bangoon ayub saxtiyaani moom yi jàll léegi da daan taxaw guddi gi lépp di ko naafila waaye da ko daan nëbb ñun daan def bu jekkee ba fajar di jot mu yëkkati baatam di xaddane ko di def li nga xam ne kuy door a yeewu moom ngay def ndax ku ko nit ñi déggee jàpp ne kooku day door a yeewu fekk daanaka guddi gi yëpp daf ko ko daan julli jekki ba fajar mu ne daal sëñ ba yeewu na kon mën na ma koy faj fekk sëñ ba moom daa fanaa ne jëm jëfuta nelaw ibnu abi adi rahimahumullahu jamian nee na daawud ibnu abil hind ku ñu wax daawud ibnu abil hind woor na ñeent fukki at yoo xam ne dafa continuer di woor siyaamu daawud bu wooree bis dog bis waa këram mutu ñoo xam ne moom ñi dafa woor mutu ñoo xam ne ak téyeer la woon da daan def bu dee xëy rek laaj waa këram ndékkee ñu jox ko ay mburóo mu yóbbaale su génnee sarta ko ci yoon la bu wàcc jotee mu wàcc bu dikkee ñu indi reer bi mu ànd nit ñu dem kenn mësu koo xam ku dul taalibe bi nga xam ne dafa taxaw moom mu nekkee ci place ba muy jàngee ci moom moom moo xam ne daf koy woor mbokk jullit yi ñii li taxaw ñu def lii mooy ragal seen jëf yàq ndax jëf xol doomu aadama dafa wayo wone jëf mën na ko daal di gaaw a yàq moo tax Sufyaan as-Sawri rahimahullah day wax ne ab jaam dana jëf jëf di ko nëbb di ko nëbb seytaane ñëw di bëree moom ba feeñal ko ñëw di moom ba feeñal ko mu nangu mu feeñ mais ah feeñ bi de garaaw naa ko feeñal nee na seytaane day continuer moom ba mu bëgg nga tagg ko ca maanaam beneen bi mooy yëmatul ci feeñ waaye daa bëgg nit ñi ne kii jàmbaar la nee na mu koy topp di ko topp ba tabbal ko nag ci ubbi mooy mu àgg ci bëggatul ñu tagg ko kepp waaye nit ñi tax muy def fàq su gisatul kenn du def yàlla na yàlla mu ëpp lool kon nag jullit suñ toppatoo woon dox yi lu ab salaf saalih xool ni ñuy dunde jaamu yàlla yi ak bu ñëw bu nekk nu am seen dëkk fexe ba tàggat yi tam ci seen dox yi ma ne kon xeetu lislaam dana ko jullit yi danañ doon ñeneen ndax jaamu yàlla yi buñ ko weesal na mooy énergie bi nga xam ne mooy dundal jullit bi moo koy def ak jullit ba lépp loo xam ne lu jaamu la mu war caa taxaw dana ca jóg taxaw ci moo koy defar ba mu doon ab jullit dëgg dëgg dëgg moo koy dindi ci ak nafax moo koy dindi ci ak suufe moo koy dindi ci ak doya bi moo koy yëkkati ci kanam nit ñi ba boroomam ba mu yeyoo boroomam dëgëral ko ci kanam nit ba suufe gi xeet ñu nekk ñu mën cee jóge ba teg ci dara ci kanam ñeneen ñi faw ñu dund ña la tekki woon dara doon dund salafu saalih la taxoon ñu tegu bañ tegu woon ba koy tudd boo ne Omar bin Xattaab yéefar ba gënee ba rëy ci àdduna di loxo tam doon koo xam ne boo di ko fekk te tey ci mu euh, jegenoo benn birig di nelaw loole ay melokaan la yoo xam ne dañ koo meloo woon ci jaam yàlla yàlla yëkkati leen ba seeni noonu ragal leen am fuñ leen teg suufeel leen waaye xeet wala bañ wayatalee yooyu defe ne àdduna la koy tax a kawe wala li tax nga mën a jot àdduna li ci biiram wala nga wormat nit ñi wala nga jiite leen ay pexe la ay dugg ci génn ci politique ay jaar ci dugg génn boobu la xeet yi naka sell bu baax jaamu yàlla mooy soxna bi moo di énergie bi nga xam ne suñ ko dundee ni ko ak salax saalax doon dunde jëriñ lu xuloo wala ñu naan dana soxla bi place wala dana bëgg kum teg fii borom bi tabaraka wa taala si bopp moo leen di yëkkati xam ne yéen ñii ku leen teg fii du ngeen ko yàq mu yëkkati leen teg leen foofu waaye bu teg nag l'islam bi ay tuur kese kese te ku la jox benn responsabilité ci l'islam nga yàq ko borom wa taala dalay bàyyi rek ci suuf yàlla na yàlla defal ci loolu yàlla na yàlla dekkalaat xeet yi delloo leen ci jaamu yàlla ak te defal na ramadan bi mu nekk ramadan boo ne bu barkeel la boo ne danañ ci génn fekk suñu lépp defarwaat tegu ci yoonu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci ndax ci loolu rek ci la suñuy jub nekk suñ jaarut loolu du jub ba mukk wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain